maam yi sa mbàkke borom alu gawe yow murit sa dex nga soxna maam yi sa mbàkke borom alu gawe yow murit sa dex nga asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibi yi ngeen déggee bayit yooyu xam ne ndigal bàyyi koot na fa mu baaxoo jógee ca kër Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké mu fi nekkal Serigne Touba Xaadimu Rasuul te mate ko sëkk ñëw ci kër Serigne Saliou Mbacké Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Saliou wàcc ci Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacké moom Serigne Saliou ñëw ci kër Serigne Modou Fati Khari jàmbaare l'islam di Serigne Cheikh Mbacké Serigne Modou Fati Khari mu jox ndigal soxna maam Issa Mbacké njiitul fédération lu kafe ngir mu fas yéene waaj dem daaru tansil ca daar yooyu ci xelkoom ngir yeggale ji liggéey ba mbokk yi xam ngeen ne at mu jot nag bu nu agsee fii dongay tarbiya yi daañu ànd ak soxna si ci liggéey boobee gannaaw ba ñu jotee ndigal seen kilifa yi defaat nañu ko ren ji muy daaree daaru tansil ji nga xam ne dañ koo ndayeele soxna maam Issa Mbacké lu kafe moom nag lañ fas yéene woote nga xam ne woote xelkoom nag képp ku dégg sunu kàddu rek su cëree ngi ci moo tax dañu jox kàddu gi sëriñ jiili mi yëkkati kàddu ci turu dongo yi su noppee ñu jébbal kàddu gi ajaratu faamaloo miy wax ci turu soxna yi su noppee nag ñu jox kàddu gi jëwriñ Abdoul Ahad Dieye mi coordinateur u fédération Ahlu yor kàddu soxna maam sa Mbacké Ahlu Café mu woo mbooleem li aju ci fédération Ahlu Café ñëpp ak képp koo xam ne am nga yéene dem xel koom daaree daaru tansil lañ fas yéene baddi la ji kon mbokk yi nu maase lu ñun ñëpp sëriñ Jili mu wax ci turu donga yi. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu fi toog jotaayu sëriñ Tuubaa Xaadimu ko fi di liggéey sëriñ Tuubaa Xaadimu di siyaare bu baax sunu jàmbaar ji sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké ñu fi toog jotaayu sëriñ Saliou Mbacké ak mboolem ay rakam ak magam ji soxna Waalo ba ci Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Sëriñ Saalixa Mbàkke mi nga xamante ni nii yàlla dogal na tool yi ñu dëgmal muy Xelkom Daaru Tanzil fas yéene caa dem le 2 incha allahu rabbi ànd ko mbokki taalib yi yëpp rawatina soxna maam Issa Mbàkke ahlu café mi nga xamante ne ni yàlla dogal na mu am fa ab cër bu ñu ko fa jox boo xamante ni at mu jot ñu ngi koy taxawee ànd ko mboolem ahlu café kon soxna maam Issa ñu ngi koy sant di ko gërëm ci tur Cheikh Mouhamadou Mourtada mi nga xamante ne nii moo fi toog jotaayu Serigne Saliou Mbacke ca xel kon daaru tansiir at mu jëpp liggéey boobu ñu fay def di mbaddalim tool ya mu ànd ko ñun dongay Serigne Saliou Mbacke yi nga xam ne nii ñun la ko Cheikh Mouhamadou Mourtada jox waaye soxna maam Issa ànd ci pas-pas ak positif boo xamante ne nii at mu jëpp dana ci taxaw taxawaay boo xamante ne nii ñëpp danañ ko ràññee kon loolu yà na ko yàgg taxawee ànd ko mbooleem ñi mu seqal ahlu café te ñu laq ci ngërëm lu kawe seen jot kon soxna si ñu ngi lay feddaliwaat ànd googu ñu yàgg ànd ci liggéey bi Serigne Touba Xaadimu Rasuul bi te Serigne Saliou Mbacke yéene woon képp ku fa teg sa tànk rek mën caa jariñu ndigal loolu nag bàyyeekoo woon ci Serigne Saliou Mbacke nga daan ko taxawu ànd koog Serigne Saliou Mbacke ak ñi nga xamante ni ñoo topp ci sa ginnaaw ak fi nga bokk muy kër Serigne Modou Faty Khary ak ki nga xamante ne nii mooy sa kilifa di Serigne Cheikh. ak mbooleem ñi nga àndal liggéey boobu ñi ngi koy feddali te di la ñaanal ñu yàgg koo ànd yàgg koo taxawee ba lépp lu ñëw ci ndigal ñu mën koo taxawee na ko sëriñ bi bëggee kon ñu ngi lay sant bu baax di fas yéene ànd ak ci liggéey boobu le deux incha allahu rabbi nañu ko sëriñ bi digalee ñu mottalee ko noonu te laq ci ngërëm kon ñu ngi sant bu baax mboole seen. soxna Maï Sa Mbàkke bi nga xam ni dongoy tërbiyee yu daaru tanzir yëpp dañoo dajaloo. tudde ko seen daara ji di daaru Tamsir ñu war a def fa mbàccum gerte le 2 euh, décembre ñu ngi ciy woo nag mbokku taalibe yëpp di ci woo nag képp koo xam ne soppee soxna Maam Issa Mbàkke nga di woo daayira Maam Jaara yi aju ci soxna maa Maam sa Mbàkke di woo waa fédération Ahlou Café Touba yi nekk Touba ak li ko wër bàyyiwul nag waa Dakar wala ñoo yegg dakaar nag dinañ jaar xombal ndax ren soxna Maam Issa Mbacké dafa euh, tudde waa xombal euh, mbàccum gerte mi ñoom lañ ko ndeyale soxna bu sa ñang ak waa xombal gépp na ngeen waaj te xam ni bis bi tey yéen a ko moom di woon nag fédération Ahlou Café Touba dakaar bàyyiwuñu kenn nag bàyyiwuñu benn quartier bàyyiwuñu benn euh, département képp ko xam ni am nga soxna Maam sa Mbàkke kóllëre na nga xam ni bis bii bisam la ndax moom mooy bàjjenu daaru Tanzir woo nañu ñëpp rek bàyyiwuñu kenn eh, duñu fàtta nag ñoom soxna Mbay ak Njaay eh, waa waa daayira bëgg Bàmba maa ngi woo ñi nga xam ne bokk ak nag ñoom Masaalikul Jinaan woo naa leen di woo ñëpp rek waa addiyee Sarsara tam ñu leen di woo na ñëpp pare le premier le deux la ñu war a dem waaye la premier képp kuy dem te jóge Dakar rek na nga jokkoog man le premier ñu mën a àndandoo wuy si soxna si fii ci Touba bu ñu xëyee le deux mën a départ fii dem Daaru Tanzir di sant bu baax ndongoy tërbiyee waa Daaru Tanzir ndax daaw ñëwoon nañ ci mbàcc mi gis nañu taxawaay yi gis nañu bëgg gi ngeen bëgg soxna sa Mbacké teraanga ji ngeen ko defal keroog lépp sunu kanam la ñu ngi leen di sant leen gërëm ndax noonu amuñu ku dul sëriñ Saliou man mi di wax ak yéen sëriñ Saliou ma yóbbu mag sëriñ Saliou teraanga ju ne defal na ko doomu aadama kon toolam yii di xel koom kuñ ci woo rek war nga caa teew nu ngi woo mbokk taalibe yépp liggéey bi le 2 décembre la war a tàmbali war a doon àllarba waaye soxna si dafa bëgg ñu gontu le premier décembre di talaata ci ngoon ci kër sëñ Tuubaa gi ci Daaru Manaan su ko defee ñeem jàppandi ci ñoom ñépp ñu dem ci talaata ji koo xam ne nag dangaa sori wala talaata du jàppandi ci yow soo xëyee ci àllarba ji le deux nga fekk ñu daara daaru tanzil danañ am ñu ñu fi bàyyi ñoo xam ne dañ leen batale képp ko bëgg dabaatal mbooloo mi mën a ñëw waaye tam bu nu noppee ca tooli daaru tanzil la cinq dañuy jàll usnul mahab ca tool yi sëriñ moustapha mu cheikh saalih foofa tam ñu ànd ko sëriñ maam cheikh ak dongay sëriñ moustapha saalih yépp ndax ñaari liggéey benn la daaw dañoo demoon ca bee ba ñibbisi delluwaat ren nag jege nañ moo tax dañoo bëgg a boole ñaari liggéey yi muy benn liggéey soxna si nag nee na képp koo xam ni séq na ak yow wóllëréew liggéeyal sëriñ Touba. tàmbulee ci njabootu sëriñ Touba gépp ak njabootu maamam Cheikh Mazamba ak kër sëriñ moo du Fati Xëri ak képp koo xam ne danga nga dib daayire bu mu séqal kóllë rek liggéeyal sëriñ Touba daayire soppe maam Cheikh Ibrahima Fall fédération euh, Matlabul Fawzayni Set Setal ak Matlabul Fawzayni ONG Asabul Janna mi ngi woo ñépp bàyyiwul kenn di wootam Serigne Mbaye Jele saar mi nga xam ne mooy président d'honneur fédération Ahlu kafe Touba ak mbooleem daara Ila Sarr Sarr yépp di wootam groupe yi nga xam ne dañoo aju ci Ahlu kafe muy groupe Ila Sarr Sarr waaye groupe soppey soxna maam isa suñu yaay soxna Fatim ngi jiite ko groupe soppey soxna Ndey Seyna bu Mbàkke di woo wootam mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk dakaar suñu bàjjeen ajaratu faama wax na ko ñoom soxna Fat Nduur ak ku aju Dakar rek ci bàjjen faama loo ñu ngi lay woow waa Masalikul naan kuréeli sarsaara yépp bàyyiwuñ benn bu nekk ci biir réew mi ànd ak soxna si liggéeyub Serigne Touba ñu ngi ci woo ñëpp di wootam gone kafe gi ci njiital sëriñ daam Kafe ndax bu ñu nee li ab liggéey gone dana ci am taxawaay di wootam soxna yi yépp ndax bu ñu ne liggéeyub Serigne jigéen ñi am ci wàll bàjjen faama wax na ko léegi daaw waa daara ji dañoo jàmbatoon ay mbana soxna si sas ko waa daayira xombal ñu jaayante ko sëriñ Saliou ba indi woon nañ ko ci bi ñuy jébbal sëriñ Mountakha xarit Tabaski yi soxna si nag nee na loolu xolam da sedd lool moo tax liggéey bi ren mu dara jalewaat ko waa xombal kon suñu baay alaaji ñang ak soxna maam bu Bousso ak ñim àndal ñépp di waa xombal ñu ngi leen koy yëgal bu baax a baax a baax di ko yëgal tam waa diaspora bi fu waay mën a nekk États-Unis Italie Espagne su région bi Mauritanie Gambie li ko wër lépp biir réew mi soxna si bàyyiwul kenn ndax soxna si daa amanteeg ñëpp kon képp koo xam ne daa séq ak yow këll rek liggéey Sëriñ Touba daan la lebal bor ci Sëriñ Touba mënoo koo fayee lu gën a rëy ànd ak moom dem xel kom ca tool yi Seex Saliou Mbacké ya ñu ngi soññu tam waa fédération Ahlu Café ñu xam ne soxna si nee na liggéey bi ab liggéey la bu ànd ak cant ndax sëñ Saliou daa waxoon ne lu ñuy defal yàlla lu gën a kawe ak cant ihmalu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiya sakur kon dañuy defar tool ya ba mu mel ni ko sëñ Mourtala bëggee te ni ko sëñ Mourtala bëggee noonu la sëñ sëñ Saliou bëggee suñu noppee ca loola nag toftal ci sant sëriñ Saliou kon nag lépp lu jëm ci bernde ñu xamee ko ahlu kafe muy lu dagan lu ñuy naan ak lu dagan lu ñuy lekk lu ci waay man soxna si ne na nga ci def sa kéemtalaay kàttan te jaayante ko sëriñ Saliou donte menn mbir moo la tëj ci sa àddina nga fas ko ci xool sa digganteeg sëñ Saliou ak sëñ Touba. loolu soxna si nee na mi ngi koy soññ ñëpp nee na moom nag mësta woote ndayal ak àddina bu dongay dajee ne ko tool bi yow lañ ko ndayale kon nee na su woote woon ndayal ak xam nañ ne danañ ko wuy si waaye loolu du bëgg ak Serigne Touba kon nag tool bii ñu ko ndayale féetale ko ko su woon goog addina ñu war ko ci wuy si delloo na ko Serigne Touba ndax Serigne Touba dana soxna jaara mat na nday ku ne kon nag delloo na lépp Serigne Touba nee na képp koo xam ne su woote woon lu mel noonu nga wuy si ko ca wooteel na ko Serigne Touba di Serigne Touba gën a sakkan lu dul moom ñu góor góorlu ci bu baax a baax a baax ñaan yàlla dem ci bisimillahi rahmaani rahim delsi ci alhamdulilahi rabbil alamin te dem gi sedd guyyu delsi gi sedd guyyu tañ daje ci tawfiixi sëriñ Tuubaa li may tëje nag mooy bayit yoo xam ne ba ma koy wax ci sëñ Saliou damay soog ko pare jàng mokkalatuma yëpp waaye ñett rek laa ciy wax damaa waxoon na layu jàng amatul ca yi daara sëtub jaara moo bari daara waa ju daa toppikoon seexal tee nga toppi tey sëriñ bi seexal waa ju yéene woon dem badar moo dem xelkom te baat kon nañu ngi soññu ñëpp ci xel xelkom ji di ñaan daje ceeg wax di awaay jële si na daamu fii xidmati wa ablahu maaraam mbokk yi kon dégg ngeen woote baa ngi noonu àllarba ñaari fan ci weeru décembre 2020 fële ca tool yi daaru tansil la soxna maam isa mbàkke jàmbaari lislaam ji di woote mu di jëmm joo xam ne saa yoo gisee mu jóg bu laaj fan la jëm ci liggéey bi sëriñ tubaa xaadimu rasuul rekk la nekk guddeem yi ak bëccëg ya lépp la jox Serigne Touba loolu moo waral daaru daaru Tansil ñu tànn ko cërale ko la ko daara jooje muy woote nag képp koo xam ne yaa ngi digg kàddu gi na nga xam ne sëb cër a ngi ci daara daaru Tansil kon àllarba ñaari fan ci weeru décembre 2020 na ñëpp waaj ñu dem Xelkom ngir baatale ci tool ya kon nag noo ngi séentu ñëpp baatum ñëpp nag bàyyiwul kenn noo ngi soñu féppit baatu fépp bàyyiwul kenn ren nag ginaaw dañ koo ndayale wala dañ ko cëralewaat waa xombal kon ñoom amaat nañ ci beneen cër képp koo xam ne nag nii ko Cheikh Abdoulaye Dieye waxee léegi boo déggoon soxna maam sa Mbacke woola ci aw xew nga àtt na jóg waaj waajtaay wa gën a foor loo am jox ko ko ndax dimbale ko ko léegi li nga ko mën a dimbale mooy fekk ko xel koom nag mbokk yi lii la laaj ab ratu buñ mën a bàccee ak lu mën a jëri ak lu mën a tonni ngooñ ma ak saako yu mën a def gerte ga ak it lépp lu jëm ci wàllu ña fay dem la ñuy loo kon nag képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu tool yaa ngi noonu àllarba ñaari fan ci weeru décembre 2020 ñu ngi ciy woo ñëpp di séntu ñëpp di ñaan sama borom yàlla defal ñu ci paju aajo saahiran wa baatinan bi barakat Seex Ahmadu Bamba ak xaadim rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëfati Serigne Touba bambaay samaam sëñ Masamba isa maam ku sopp maam isa defal ni ñu màggal maam isa Mbàkke